Jeff ju juste juste oui donc euh, gouverneur de région comme nous avons ko déggee nous ko centre bi accueillir malades yi nga nous nous euh, euh, solliciter à ce que hôpital ait au niveau du service donc de réanimation donc loolu le nous donc acte bi mais lu wessu lolu dañu nek ci contexte bo xamné ne xam nañ ko ñu nek vraiment ay euh, doomu dëkk bi euh, depuis le début donc de la euh, donc maladie bi ñu ñëw di gestu population ak comité de gestion bi nga xamné ñom ñoy xex euh donc pandémie bi au niveau donc d'accord de Kaolack donc lolu waralon tay ji suñ ñëw fi ñu and ak papi mi nga xamné mo mo euh donc moo ñu gunge moom lañ gungé si mu ñëw indaale d'accord euh, li nga xam ne tey jii mën nañ ne yóbbal la mu jaar ci loxoom jóge ci euh, donc Doro Gaye mi nga xam ne suñu euh, mag la nekk suñu biir mais ànd ak papi mi nga xam ne aussi ñun ñëpp tey jii ngeen gis fii nii ñu ngi ci ginnaawam donc di ko jàppale ci action de développement yi nga xam ne moom la ñuy mëne au niveau de Kaolack donc loolu moo gën a sabab donc suñu ñëw fii tey donc ñëw jébbal hôpital bi fukki lal yoo xam ne dina dem ci service de réanimation ak ay thermoflash yoo xam ne hôpital bi euh, euh, ñëpp xam nañ ni soxla nañ ko donc ñu ñëwoon jébbal ko euh, directrice hôpital bi ànd ak suñu gouverneur ak médecin chef donc de région donc pour wax leen ne leen daal loolu daal donc tànk donc message bi à chaque fois mooy comme li ñuy wax rek di def un appel. parce que dafa nekk loo xam ne lu lu benn mën lu ne fukk ko ko dàq donc ci kaw loolu amna ay fils ay ay ay doomu Kaolack yu nek ci biir euh, Sénégal nek ci biir dëkk bi à chaque fois day lancer appel à ce que ñom aussi ñu def geste yu melni nga xamné ne Kaolack soxla na hôpital bi soxla nako ta nek nañ ci contexte bo xamné c'est un contexte particulier donc képp kuy doomu Kaolack Kaolack euh, ñor la tax la euh, tax la jog donc baxna moment yi ngay geste population wax rek né li ni du goulet ci ci Doro Gaye mu nekk doomu Kaolack yaakaar naa ne bi mu njëkk a lancé appel ne dañu bëgg ku dimbale comité régional bi dimbale population yi ci ay jumtuwaay je crois que moom moo njëkk a réagir mm-hmm. léegi sax sànq maa naan ko ah yow dafa mel ni yow jig nga ñëw parce que bi ma njëkk woote aussi yaa njëkkoon réagir mm-hmm. ñaareelu woote bi aussi moo njëkk a je crois que loolu am solo te réaction bu am solo la parce que bu njëkk bi jox nañu ay jumtuwaay protection yi nga xam ne ni biñ ko évaluer jege na ëpp na cinq cent mille francs tey jii aussi mu jox ñu fukki lal réanimation buñ ko évaluer ëpp na jege na sept millions de francs parce que daf ci boole ay thermoflash te wax na ne nag mi ngi ñëwaat mhm. nee na dana ci tegaat yeneen fukki lal mhm. donc mu nekk lu nga xam ne vraiment lu am solo la lu am solo la ñëpp war nañu ci roy parce que nag nit ki warul wax rek euh, di xaar rek lu may sama réew di defal lu ma sama réew defal te yow doo jéem a defal sa réew dara te dama wax léegi ci tubaab ne euh, état mënul te warul def lépp mënul te warul def lépp il faut mu am ñu nga xam ne ni ñoo ci war a jàpp jàppale ko ay citoyens yu nga xam ne yàlla may na leen baaxee na leen ñu jàpp ci pour que Euh, état gën a mën a am doole gën a mën a vraiment euh, tontu euh, besoin yi nga xam ne nii moom la population di exprimer wu je crois que dañ koy gërëm di ko sant amuñu sax mooy vraiment pour gërëm ko assez dañu wax rek lu may na ko na ko yàlla fay lii nga xam ni nii def na ko te bu soobee yàlla yàlla dina ko ko fay